asalaamaaleykum mbokki jullit bi mbokk taalibe yi bu ngeen dégloo nañu ubbee ngeen xam ni bés bu mag ba bés bu ñu doon xaar bés bi nag mbokk yi di cinq safar buñ ko tuddee nag xel yépp day dem si Rafah TV di nag chaîne bu mag ba di chaîne bi gën a ràññeeku fii si diwaanu Bawol di liggéeyal Serigne Touba suba ak ngoon lépp nag lu yoonu murit xewle kenn du ko sa jiitu ci information yu wóor te leer mbokk yi Rafah TV moo leen di yëgal ni kat mi ngi fas yéene amal cinq safar di bis bi nga xamante ni nag moo yemook ñetti at bi ñu ko sosee ba léegi ginnaaw bi ñu ñaanalee Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ni nag ñu ngi koy amal si ndigalu Serigne Ahmadou Rafah Mbacké di seen i soppe di seen royukaay Rafah TV ne kat journée sargal bii muy fas yéene amal ñoo ngi siy fas yéene nag delloo njukkal ñenn ñi nga xamante ni seen i taxawaay rafet na loolu si diine ji bés bi di am nag cinq safar yemoog fukki fan ak ñett wala fukki fan ak ñeent si weeru septembre ñu ni ma ngay xewee ca kër Serigne Touba bi nekk ci Daaru Marnaan bu 16h jotee jàpp 21h mbokk yi bis bi nag ñu ngi ko fas yéene amal si thème bii di média et société avantage inconvénient perspective maanaam taxawaayu tasub xibaar ci askan kan moo ko fas yéene animé di Pape Djibril Fall journaliste mbokk julli di mbokk taalibe yi bis bi nag Rafah TV mi ngi ko jël dara jàlle ko Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole du khalife général des Mourides di ko dara jàlle Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma président communication du Grand Magal de Touba du ministre conseiller auprès de son excellence président Macky Sall Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba chef religieux Serigne Seck C3S Serigne Abdoulaye Dia Sénico Serigne Mohamed Diop et frères Serigne Gana Messeri conférencier Soxna Maam Issa Mbacké Ahlul Café Serigne fàllu Kébé Touba xéewal karo bis mag bi mbokk yi ñuy amal ñu ngi si woowu njabootu Serigne Touba yépp ñu ni fàttewuñu kenn bàyyiwuñu ñenn di si nag woowu Serigne Abdou Samad Mbacké moom Serigne Choybou ak it cheikh yi Serigne Touba yépp mboolem autorité administrative di si woo monsieur le maire de Touba Abdou Lahad Ka di si woo Touba sa kanam ak mbooleem membre ak mbooleem presse mu doon presse écrite presse audiovisuelle di si woo mbooleem presse en ligne bi mbooleem presse locale bi fàttewuñu kenn ñu ni bàyyiwuñu ñenn ñu ngi si woo mbooleem jàngkat yi mboolem conférencier yi daayira isbu tarqiya si njiitalu Serigne Youssou Diop daayira muqaddamatul xidma mbooleem daayira si Touba wala fondation wala association kenn ku Rafah TV ma sa jëf leen teel ak képp kuy soppee Rafah TV ñoo ngi lay woo si bis bi Rafah TV fas yéene nag sargal ñi nu gën a ràññee si diine gi yamoog nag ñetti at bi mu sosee kuréel gii ba léegi di bésub 5 safar di xewee nag ci kër Serigne Touba bi nekk si Daaru Marnaan 16h lay doon jëm 21h mbokk yi ñi ngi ñaan àgg ak jàmm si bis bii di si woo ñëpp ñu ni bàyyiwuñu kenn